بسم الإله ينقل ñun dañu ne woon nañu évacuer kër gi nañ évacuer kër gi léegi nag amuñu feneen fu ñu dem ñun dañu yaakaaroon ne sax dañuy jël yóbbu ñu fenn pour ñu mu toog fa en attendant mais yóbbuñu ñu fen boobu ba léegi ñoo ngi fii bon dañu obligé beneen bâtiment bi nga xam ne moo féete na le ñun ñëpp ak xale yeeg ñëpp ñuy fanaan foofu bàyyi beneen côté bi par mesure de sécurité boobu ba qui ci loolu la ñu di xaar ça fait des semaines non boobu ba léegi pas wax dëgg yàlla keneen ñëwaatu fi euh, lu dul sëriñ bi sëñ Mara Mbacke bi adjoint maire boobu ba léegi commencement ba léegi moo ci taxaw ak ñun wax dëgg mais autorité yi bi ñu fi ñëwee wax premier jour boobu si ba léegi dellusiwaatuñu fi non ngelaw loolu bi mu commencé sax ñun dañu génn kër gi parce que bu ñu fi bon mën naa daanu suñ kaw parce que pompiers yi ñoom seen liggéey la ñooñ ñooñu waxoon nañu na ngeen génn kër gi bon comme mënuñoo dem feneen nag bàyyi kër gi dañoo féete woon benn côté mais bi ngelaw li commencé moom dañoo génn kër gi bàyyi ko ba mu dalaat après ñu del siwaat damay wax ne autorité yi bu ñuy jëlati jël affaire jël bu njëkk rek bàyyi ko léegi bu ñuy def dara nañ ko suivre à la lettre parce que wax dëgg yàlla ñun ay citoyen lañu dañuy fay impôt di fay lépp bu fekkente ne bi dañu am problème ñoom war nañu ñëw taxaw ci bon bu ñëwee premier jour bi nag bàyyiwaat ko ba accident amaat fi comme yàlla defoon na jàmm kenn gaañuwu ci woon bu ñu bàyyee nii ba beneen problème amaat ci ñuy door a ñëw di ñuy indil ay saako ceebak ak ay butéelu diwlin ñun soxlawu ñu loolu li ñu soxla mooy assistance ñëw présenté wu def li ci war ndax kër sëñ tubaay yi defe naa ne sax buñ ko fi defee pour ndimbal ak yooyu la ñun dañu normalement danger bi ñu nekkee nii dañu waroon yóbbuñ ci kër sëñ Touba teg ñu fa dégg loolu ma la wax Mara bi adjoint maire moom dong moo fi jaar di ñu nemmiku boobu ba léegi mu ngi ñuy nemmiku mais keneen jaaru fi. fan yi yëpp depuis vingt jours ci jàqare ak jaaxe lañ nekk dañu doon tiit ak ragal lépp nag desaa mi ngi nii léegi bâtiment bi daane nañ ko xañ na lii la ci yàlla dogal mais mi ngi jàqaloon benn bâtiment boo xam ne 4 mètres la bu newoon ci télé bi ñaari bâtiment ci biir kër gi ñaari néeg desaa daane na ko li fi yàqut matériel mënuñu la ko wax moom xët ci biir ak xare gi moom bâtiment bi daan na seen kaw fi may waxee ak yoon yi waaw yi mën a génn ñoom a génn yi mënta génn génn waaw léegi nag maanaam lii moom moom ñëpp a gisal seen bopp daal waaw ñëpp ñoo gisal seen bopp vraiment waaw léegi li ñu bëgg mooy borom kër gi moom na def tout pour ñu mën a gisee ak moom ndax mbir yi ba mu amee ba léegi yàgg te gisuñu ko dégguñu ko kon dafa mel ne mbir mi wu ko ndax mel ni bu xewee ci ab koñ ah, a ñaar fukki fan a ñun ñu xam nekk ak nu ma demee waaye gisuñu ko dégguñu ko benn néeg lañ yàqule woon léegi bi ñu ko daanee yeneen ñaar néeg yàqu na ñu yàlla dimbale sax mooy néeg yi euh, matériel ci nekkoon dañ koo génne ndax euh, mu daanoo euh, la yàq daal mais woon na ko mais jëmi bâtiment beeg seng yi moom ci la normelu waaw ndax ñu dañoo maanaam étage yi ñu ko daanee tey nii rek uh-huh. ñaari bâtiment yi ñu mën caa dëkkaat niñ ci dëkkee woon uh-huh. mais depuis vingt jours lañu ko génn di fanaan ci biti doon xaar étage waaw léegi moom xam nga réew moom réewam yoon la xanaa xool ñi ci ëpp xalaat ak ñi ci mën a waxtaan na rek mais lii moom nekkul loo xam ne dañ koy bàyyi nii ko lijjanti moom nuñ ko mën lijjantee koy falaa falaa bàyyi ko nii ndax ak ak càggante ak ceetaante ci am ah, alhamdulilahi rabbil alamin li ñu njëkk a def mooy sant bi biñ ko wàccee ndax bi mu nekkoon fii mënuñu woon a nelaw surtout guddi gi guddi dañ daa génn ci bâtiment yi dem feneen wut fu ñu fanaan ba bët set ndax i ragal mu daanu comme ni ñu ko sapeur pompier yi waxoon ak ak waa mairie bi ñu fi ñëwee waaye nag ginnaaw daanu ni si jàmm alhamdulilah ay dégâts matériel rek la nañ sant nañu yàlla delluwaat ci lañ ko doon sant ñi doon ñaanal itam pour ñu mucc ci ñu ngi leen di sant ci ñaan yooyu ñu doon yónnee ndax buñ ginnaaw yàlla ak yonent beeg sëñ Tuubaa ay ñaan yi moo tax ñu mucc ci ndax mën naa gën a méttee nii waaye nag ginnaaw dégâts matériel rek ci des alhamdulilah rabbil alamin ki moom kër gi daanu moom mosuñu koo gis mosuñu koo dégg ba mu tàmbalee di ko jënd ba léegi mosuñu koo gis fii ci suñ kër yi mu ñëw nuy suñu wala mu ñëw wax dox tànki dëkkandoo. bis bi ñu ko mën mënee defaral suñu bopp ñu defar ko ndax bañ fi ba yëf yi xewee ba bis ni ki tey yéen ñi yéen fii door a ñëwaat ñu gis leen fi. autorité ñëwaatu fi keneen ñëwaatu fi pour laaj ñu wala dimbali ñu maaraa Mbacke mi ñu dëkkal sëñ Mbacke mi ñu dëkkal moom moo daal ñëw di ñu taxaw di ñu dëfal di ñu digal di ñu digal. waaw xanaa ñun bala ñu leen a sant dañ leen di sant ci euh, euh, autorité religieuse yi ndax jàpp naa ne euh, fii ma taxaw nii am na droit sant sax ci ci ci kàddu sëñ taxa ndax sëñ Mountakha Bachir mooy ki nga xam ne mooy xalifa général des Mourides lu baax rek moo ko ñor lu baax rek la bëgg te aar nu rek mooy li nga xam ne moo ko fi baax. kon su fekkee kenn nekku fi tey man am naa droit jël mes propres responsabilités sant leen ñoom équipe bi au nom de Serigne si euh, euh, euh, sëñ Mountakha Bachir. su ma ko santee ji su ma leen santee nag ci baatub Serigne Mountakha Bachir mi nga xam ne ñëpp muy suñu kilifa ba pare am naa droit itam nag sant leen ci baatub bépp kilifa religieuse ndax nag wolof Njaay dafa wax ne la ñuul moo fa dem ñekk tey nag maa fi dem ñàkk loolu yàlla dogal ndax gis nga lii nii normalut ñu di ko def ci dëkk bi sapeur pompier tey waroon na fee nekk. di assister nit ñi en cas de pépin parce que fii kan da ngeen xam ne lu ne mën na fay xew waaye jàmbaar yi taxaw tey ñu réquisitionné leen ñu nekk ci entreprise boo xam ne chinois yi moo leen réquisitionné ñu andi leen fi tey ñoom liggéey bii tey ñoo ko def ko nun nu leen di sant ci turu xalifa général des mourides di leen sant ci turu chef religieux bu nekk Touba jiital ci sëñ Amadou Makhtar mi nga xam ne ci koñam la xewee ñoo ngi leen ciy sant di leen sant itam ci au nom de la commune parce que euh, ñu bari nee nañu woon euh, mbir mi dafa yeex su fekkee lu mel nii dafa am en matière de protection civile dafay dem ba day dépasser autour commune bi waaye directeur euh, de cabinet mi ngi ci woon ne dañ na ko ci kon suñ demee ba lii tey ñu def ko ñoom ñi amee nañ leen jukkeel ñu ngi leen di sant di leen gërëm te xam ne c'est des grands hommes waaye nag ma ciy teg itam na nag matériel bi nga xam ne moom moom lañ jëlee Jurbel ñoom am ko andi ko fii nekk bu entreprise war na noo mën a am waa Touba nuit matériel bu mel nii ba soo liggéey suñu leen soxlaa xëy na sax dañ leen di woo en tant que euh, technicien mais danañ yor matériel bi waaye nag di soxla lu mel nii tey di ko jële njaareem di ko andi ñii koy taalibe Sëñ Tuubaa yu baax lay xam ne dañoo dëkk ci dëkk bi xam ne lii tey su yàqoo ñoom la yàqul moo tax ñu def ci Pastef bii mais fii tey lu ne moo na fee xew kon nag sëñ bi noo ngi leen di sant di leen gërëm euh, euh, di sant itam Sidi parce que man Sidi biñ ko xeye indi tay ba xol ko wax deug yàlla amu woon yaakar ci Sidi mom waaye mom mo doon dawal ki bi def na fi def na fi liggey bu am solo Serigne Touba mi fay yàlla nu yàlla bolé fay te yàlla def ko mak te itam mu gën a mën gor gor lu kon nak yàlla nu yàlla bolé dimbali jërë ngeen jëf bismil ilahi yan